bismillahi rahmaani rahim mbokki Sage euh, TV mbokki Muntazam Voyage ñu ngi leen nuyu di leen ziyaara waxtu tisbaar jot na ñoo ngi nii di dox dem di julli ji tisbaar ñu ànd ak yéen ba ci biir jumaa ji incha allah yoon bii moo jógee fi ñuy tuddee jarwal jarwal wala jabalu kaaba jarwal wala jabalu kaaba mën a jógee gis nga ma nekk leen doon wan keroog loolu ngi noonu gis ngeen yaa ngi nii ba léegi yeggagul gis ngeen mbooloo mi ngi dox di ñëw di waxe gi nii nag bari ñibbi nañ seen réew ndax pare nañu aj bu yàgg waaye vol yi ñuy xaar moo nu fi téye ba tey waaye ñu bari fi mu toll ni dellu nañu ci seeni réew toll ni naaj baa ngi tàng waaye teewul rek nit ñi dañuy dox bàyyeekoo fu sori ñun alhamdulilah ci muntasam fi nu dal soriwul dangay dox même pas cinq minutes nga yegsi ci jumaa ji macha allah dugg ci biir. loolu taw féex la am na ñoo xam ne lu mu néew neew vingt minutes wala trente minutes danañ ko dox ngir yegg si jumaa ji ñenn ñi dañuy jël oto ngir yegg si jumaa ji teewul li muy sori sori heure boo génnee da ngay seen fu sore sore sori nit ña dafa bàyyeekoo ngir ñëw julli si fii ci jumaa ji nga xam ne nii pas-pas rekk am solo yàlla rek am lu mel nii. jaamam yi di ko ko defal juróomi yoon tibis bi ñu naan xaya ala solaa xaya ala alfalaax di woote ñëw leen nit di wuy si ku dul yàlla boo ko doon woote nit ñi tàyyi nit ñi xaddi nit ñi découragé waaye alhamdulilah nit ñaa ngi bàyyeekoo fu nekk ñëw di wuy si woote bi gis ngeen zam-zam ba ku dox ba sonn boo ñëwee naan mu sedd guy bari njëriñ di faj jàngoro di faji xaajo zam-zam tabaarakallah تبارك ngi ñu duggee porte 104 dañuy duggee gis ngeen fii bu guddee espace bi yëpp nit ñi dañ fi toog ñaa ngi wàññeeku heure bi boo daan julli si tisbaar mbooloo mu baree bari ñooy duggandoo waaye léegi nit ñaa ngi wàññeeku ñaa ngi wàññeeku bismillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam allahuma ifir li dambi xaaral ma jaar nii al ma jaar nii jullikaayu jigéen ñaa ngi noonu ma doxal leen ba ca kaw a kaw ngeen man di xam biir jumaa ji ni mu bindoo mi ngi noonu fii yëpp ay jullikaayu jigéen ñi la maa ngi toll ak porte cent maa ngi tollook porte cent maa ngi tolloog porte cent fii duggukaay la góor ñi ngi dugg waaye ma dox ba ci kanam xool jéggalu ci baat bu xoot doos bi dëkk bi moom loolu bokk na ci médaille baat bu dee ak soj baat bu dee ak soj moom baaxu dëkk bi la tàngoor bi la coono yi la nit ñu bari ñu fi dajaloo la wallahu aalam mm beneen porte ngi noonu nit ñi duggee ba tey gis ngeen mi ngi noonu maa ngi porte cent quinze léegi ma jël yoon bi mën nañ fay yéegee mais dañ ko tëj jullee góor mën nañ fi jullee jumaa ji nag mooy jumaa joo xam ne fi ngay gisee góor ak jigéen yi bokk ngànt a koy waral bokkul ak réewu Occident yi nga xam ne tey ñaawal diine ak sa boote ko ak xeex ko ak woyofal pas-pasu lislaam ci bëtu nit ñi moo tax tey ñu def mosquée mixte waaw mosquée jaxase góor ak jigéen ci biiri sàppi ñuy julli loolu moom ak asaru la waaye fii ngànt la dafa am qaayida usul buy wax ne inna daruraat tubiixul maxburaat inna daruraat tubiixul maxburaat ngànt yi ñooy maye yi nu tere te bu ñuy wër kaaba gi mënuñoo séparer góor ñi ak jigéen ñi te dañuy wër kaaba gi ba julli jot rek ku nekk foo jot ngalal fa julli foofu du yomb nga bëgg a séparer góor ñi ak jigéen ñi du yomb du yomb moo tax dangay gis ñi wër kaaba gi ba julli jot ñu nodd rek ñëpp janoo kaaba gi góor ak jigéen même sàppe di julli donte am na ñoo xam ne danañu chargé wu liggéeyu jéem a ber nit ñi waaye léeg du yomb gis ngeen ñu baree bari ñibbi nañu waaye ba tey gis ngeen rek mbooloo maa ngi fi des ba tey macha allah. salaamaaleykum ba tey mbokki Oustaz TV ñu nuyuwaat leen ziar leen gis ngeen biir jumaa ji ku nekk liggéey yi nga xam ne moom lañ la chargé gis ngeen fii euh, xutba yi nga xam ne moom la ñuy def ci jumaa ji bisu àjjuma ñi nga xam ne ñoom lañu ñu chargé ngir xutba yi ñu war di ko traduire bu imaam bi xutba ci arab lay xutba mais langue yi ngay gis yëpp muy anglais français euh, melayu euh, ak làng yi yëpp dañ ciy traduire li nga xam ne mooy xutba yi gis ngeen ko noonu am na foo xam ne da ngay jàpp rek di déglu naa la wan léegi fréquence yi nga xam ne boo ci jàpp wala lii nga xam ne mooy feles yi ñu def nii wala màndarga bii ñu def boo ko capturé bu imam bi xutba lu muy wax ci arab langue yi yëpp mën nga ko cee dégloo xoolal anglais bi boo bëggee fréquence bi ngay jàpp français bi fréquence bi ngay jàpp bu dee da nga yor rajo FM loolee ñi nga xam ne application bi la ñuy utiliser wala dañuy utilise code bi ñoom dañuy jël code bi rek waaye ñiy utilise FM yor rajo français ak anglais ak yeneen langue yëpp fréquence yi nga gis nii boo ci jël mu dégtal la xutba bi ci langue bi nga dégg ba tey même chose moom lañ defaat fii di wane ne langue yi yëpp. Euh, dañ la ci traduiral xutba bi ni mu gën a gaawee moo xam xutba yi ñuy def ci Màkka ak la wala xutba bi ñuy def bisu Arafa lu mat dix langues yoo xam ne nii bu ci nekk mën nañ la ci traduiral xutba bi angaleek français ak malawi ak urdok faris ak russiya bengalia muy Bangladesh siin sinwaa turki hausa langue yëpp bu ci nekk boo jàpp mën nañ la ci traduire li nga xam ne mooy xutba bi gis ngeen matériel yi nga xam ne moom la ñuy traduire mi ngi noonu tabaarakallaahu gis nga fii ñu ngi lay wan ne langue yi nga xam ne moom lañuy walla wala xutba yi ñuy traduire mooy xutba àjjuma yi xutba àjjuma wala feet lu mel ne korite ak walla ñu jàpp jant bi wala ñu jàpp weer wi wala jullit baawu naan wala xutba bi su arafa ak yeneeni mbir yoo xam ne nii ci ay leçon la yi juddoo ci biir euh, xaram bi ñu ko jiite di ko joxe di jàngale wala ay téere yu ñuy bind ak yu ni mel yooyu yëpp ci làng yi muy urdu wala euh, français wala malawiya wala farisiya wala ingilisiya anglais bu mu ci manti doon euh, ci langue yi yëpp muy juróomi làng mën nga ko cee déglu xeetu événement yi yëpp bu ci am mën nga cee déglu langue yi ba def nañ site internet nga xam ne ni uniquement ngir loolu la ku fa dugg moom itamit xutba yooyu yëpp di nga ko mën a am gis ngeen tableau bi maa ngi laaj mbokk mi lii lu muy wundu moo ñu jox ndigal pour ñu mën a filmer fii sax euh, maanaam 3 millions yi ñu def ñu ngi def 1435 hijriya maanaam projet bi biñ ko soseek léegi li nga xam ne nii moom lañu ci réalisé gum 1435 euh, hijriya am nañ 3 millions personnes yoo xam ne nii utiliser nañu jumtukaay yi ci quatre langues 1436 6 millions virgule 5 nit. juróom benn million yu teg ci doomu aadama jëfandikoo nañu déglu xutba yeeg njàngale yi ci ñeenti langue 1437 ñu yegg 9 millions ci ñeenti langue ba tey 1438 ñu yegg ci 11 million virgule cinq ci juróomi langue 1439 ñu yegg ci 13 millions virgule 5 ci cinq langue ba tey 1440 ñu yegg ci quinze millions virgule cinq ci juróom-benn langue mille quatre cent quarante et ñu yegg ci vingt deux millions virgule cinq ci dix mille quatre cent quarante deux ñu yegg ci vingt deux millions virgule cinq ba tey ci dix langues lii mooy étape yi nga xam ne nii projet bi jaaragum na fi depuis mille quatre cent trente cinq ba mille quatre cent quarante deux lii ci ay limu doomu aadama ñoo ci jëriñu ñoo xam ne déglu nañu traduction yi. ci lii nga xam ne nii moom mooy jumtukaay yi ñu waajal ngir loolu macha allah gis ngeen yii yëpp yooyu lay wane ba tey fii rek ñi ngi wane ne lu mat ci cent cinquante millions yu jëriñu ci xutba yi ci dix làng yoo xam ne nii traduire nañ ko ci macha allah mi ngi noonu muy ay liggéey yoo xam ne nii ñi ñu dénk lii toggoon nañu ko gis ngeen fii moom ay image ñoo fi nekk yoo xam ne image yi jëmmal kaaba gi la euh, maqaam Ibrahima a ngi noonu xajarul aswad fi ñuy foon a ngi noonu gis ngeen yëpp ay image la yoo xam ne archive la yuñ fi denc ci kaaba geeg ñi fi ñëw ak euh, tabaarakallaahu li moom ca Médine la macha allah jàkka Yonent bi sallallahu alayhi lii moom Médine la jàkka yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen noonu macha allah mi ngi noonu lii ba tey gis ngeen ci image u kaaba gi la bismillahi rahmaani rahim qul sadaqa allahu fa tabiu millata ibrahima xanifa wa ma kaana min almushrikin inna awala baytin wudia linnaasi lalladi bi bakkata mubarakan wa huddan lil aalamin fiihi ayatum bayinatum ayatum bayinatum maqaamu ibrahim wa man daxalahu kaana aamina wa lillahi ala annaasi xijjul bayti man istataa ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun an il aalamin macha allah yëpp ay image u archive la wa is jaalna albayta mathabatan linnaasi wa amnan wattaxidu min maqaami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa ismaila an tahira baytiya littaifina walaakifina wa rukci sujud wa id yarfacu ibrahimu alqawaacida min albayti wa ismailu rabbana taqabal minna innaka anta samicu alalim rabbana waj'alna muslimayni laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim macha allah lii ñi ngi joxañ ne fi tolloog baatu multasam benn porte la ci kaaba gi foofu la foofu la tollool foofu la ne macha allah macha allah xijru Ismaayil fi tolloog fi ñuy wax xijru Ismaayil ci kaaba gi bismillahi irrahmani irrahim alxajju ashhurum maalumatum fa man farada fihinna alxajja fa man farada fihinna alxajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi lxajj wa maa tafaalu min xayrin yaalamhu llah wa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa wattaquuni yaa ulil albaab laysa alaykum junaaxun an tabtagu fadlan min rabbikum fa ida afadtum min arafatin fadkuru llaha inda almashari alxaram wazkuruhu kama hadaakum wa in kuntum min qablihi la min addaalin thumma afiidu min xaytu afaada annaas wastaghfiru llah macha allah nabi ibaadi anni ana algafuru rahim wa isaalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani fi tolloog xijru ismail lii mooy li nga xam ne moom lañ fa bind ba tey fi tolloog baabu ibrahim wa is bawanaa li ibrahima makaana albayti an laa tushrik bi shay'an وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير summa li yaqdu tafathahum wa li yuufu nudurahum wa li yatawafu bil bayt al atiq sadaqallahu al azim bismillahi rahmaani rahim wa bashir al muminina bi anna lahum min allahi fadlan kabira aha wa man yacmal suan aw yadlim nafsahu summa yastagfir illaha yajid illaha gafuran rahima gis ngeen fii yëpp image yi nga xam ne moom lañ wërale kaaba gi moom lañ fi taf nii macha allah gis ngeen fii dañuy wane étape par étape fi ñuy jaar ngir lii ngeen di gis nii niñ koy liggéeyee fi muy jaar étape par étape muy tissu bi nga xam ne nii moom mooy tissu bu noir bi wëñ yi nga xam ne moo ci nekk muy wëñ yi zone yi fiñ koy liggéeyee fi muy jaar étape par étape moom lañ nekk nii di ko wane ba keroog muy nekk tissu bi ñu koy wërale kaaba gi mooy li ñuy wëralee kaaba gi xam ne uniquement dafa am ñoo xam ne loolu seen liggéey la seen liggéey la ci tissu bi ci wëñ yi niñ koy liggéeyee ba yegg ci mbind mi ñu ciy bind ñi koy bind ku nekk liggéeyam ku nekk liggéeyam macha allah mi ngi noonu gis ngeen ñi ngeen gis ni ñëpp nag ñu daa am ay cadeau yi ñu joxe fële am na rang boo xam ne góor ñi ñoo fa ne ak bu jigéen ñi ne ngir yi nuy joxe ñu won leen ko fii ngeen gis ko macha allah kii mooy kii bind. bind day am day am ñi ñoo participé ci mbind mi rek ñu foto leen macha allah gis ngeen fi ñuy liggéeyee li ñu la doon wan léegi muy lële ni ñuy koy liggéeyee mbind mi gis ngeen ñu yi dañu ñëw rek ngir participer ci mbind mi nii ñu jël leen image photo muy suvenir macha allah. jox leen cadeau tàngal wala yu ni mel. jox nañ tàngal macha allah. mbind mi fi mu toll nii bismillaahi rahmaani rahim waaye gis nga mbind mu technique bii mu koy bind macha allah. ñëpp a ngi bëgg a ñëw pour participer rek ci mbind mi buñ paree ñu jox leen tàngal macha allah mi ngi noonu. mu ngi noonu ñoo ko gisandoo ci biir jumaa ji la nag li ngeen di gis ni yëpp ci biir jumaa ji la tabaarakallaahu kon dana am solo lool ngeen xam yéen ñi fiy ñëw bërëb yu mel nii ne mi ngi ci biir jumaa ji ñu waajal ko macha allah fi ñuy dégloo xutba yi surtout ngeen man ko xam c'est important mi ngi noonu fréquence yeeg yëpp macha allah gis ngeen ñeraan yi ñëpp foofu ma leen wan léegi fa lañ jëm ngir mën a participer ci mbind moomu bu ñu noppee jël seeni cadeau di leen wax ne rek way leen di abonné ci Oustaz TV détails yi ngeen foogutoon feek ñi ngi fi incha allah yëpp lañ leen di wan ba nga xam ne ki ñëwutoon màkk wala sax ki fi mës a ñëw mais am na yoo xam ne ump na ko fi détails yooyu yëpp walla yu ci bari nañ ko ko wan gannaaw bi mu xamee ni muy defee ajam xam ni muy defee umraam yenn yi nga xam ne nag ay mbir la yu nekk ci biir jumaa ji nekk ci biir dëkk bi ñu mën leen ko wan macha allah gis ngeen lii ci biir jumaa ji la mais fii dafa ubbeeku dafa ubbeeku gis ngeen ni mu bindoo baarakallah jërë ngeen jëf woy leen di abone ci Sa TV officiel waaye di leen fàttali ne Muntazam voyage dana amal umra Muntazam voyage dana amal ziar Fès Muntazam voyage ak aj gi lépp woote leen ci double 0 221 77 516 04 28 77 516 04 28 ak seen mbokk Oustaz Makhtar Sarr ak Muntazam Voyage ajak umra ak yoonu Fès teel leen a bindu wax naa leen ko teel leen a bindu balaa placé Fès surtout aj gi Muntazam Voyage bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahuma ixfir li danbi waftax li abwaaba rahmatika Muntazam Voyage wax naa leen buntam yi ubbi na ko année bi yëpp loo am versé ci compte bi su matee nga bokk ci ñiy dem su matul bu jotee nga mottali bokk ci ñii dem waaye priorité bi mooy ñu njëkk a bindu Muntazam voyage bu nu feesalee dañuy arrêté du nu jël lu ëpp seen quota macha allah jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatulah